ngeen jëf ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax tey nag ñu ngi ñu tey génnuñu ñu ah mais génn nañ Dakar tey ñu ngi àjjana <laughs> tey fii ñu nekk nii picc boo doon dégg si alxuraan wala ci biir wala fu mën nekk rek ñu naan am na àjjana boo ñëwee fii di nga ko fekk quoi loolu moom maa leen ko maa leen ko wax ñu ngi Lac Rose ci parc bu ñuy wax euh, la Mbossé bokk ak le mboose bi nekk la nag la mboose bii dañ koy importé mi ngi fii Kaolack mi ngi fii euh, Lac fekk fi ba mu nekkee parc animalier boo xamante ni vraiment yaa yaa yaa du tout quoi lépp lu rafet lépp lu baax rek mi ngi fi avec le grand Babs Babacar Ndaw di gérant bi fas yéene defal benn benn benn tour ci picc yi d'abord semaine bii fii lañ koy jagle chaque jour bu ñu xëyee nañ fi ñëw am nañu leen ci ñamal joxleen leen bi jox leen jox leen jox leen contact bi yéen ñi nga xamante ni affaire de picc dana leen intéressé lu rafet dana leen intéressé dangeen ngeen bëgg a décorer seen kër c'est la bonne adresse. ok Babs maa ngi lay ziar bu baax. bon fii ñu ngi fi am euh, ay pérus à collier mhm. pérus à collier verte quoi mooy suñu seeku Sénégal yi mhm. mais am na yeneen couleur am na pérus à collier jaune blanc gris mais yooyu amul Sénégal yooyu si yeneen dëkk yi la am mais ñun bii lañ am fële tamit am nañ fi ay yuyu yuyu di Sénégal mhm. bon yooyu ñoo nekk ci ñaari box si quoi yi moom pur sans Sénégal la quoi gis naa fi yoo xam ne seen génn dañoo gudd yi génn yi gàtt lu tax loolu bon ñaari race yu bokkul bu dee yii mhm. ñoom seen génn day gudd ñoom pëlis ak collier à yi seen seen seen génn day gudd yu yi moom seen génn day gàtt waaw yi am collier bu noir bi. Mhm. moom moom moom mooy mâle bi yi ko amul mooy femelle bi quoi. Mhm. moo tax ñu ne leen woowee perruche à collier. d' accord oui. d' accord man seko seko bu produire nag mosuma ko gis est ce que ñu ngi produire fii. non fii moom commencé guñ ci produire parce que yàgguñ ci. mais mën na nekk. mën na nekk waaw mën na nekk. d' accord c' est possible. dañuy nen et tout dañuy nen couver nga defal leen ay ay ay ay box ay pondoir. après ñu ñu ñu ñu couver ci biir c'est possible. Mhm. d'accord seen alimentation lan la ñuy lekk fii. bon ñii nag ñoom bañuñ dara ñii moom gerte mboq dugub ñoom loo leen jox dañ koy lekk quoi. d'accord mhm. mais ay du wàllu yàpp yooyu duñ ko. non non non non yi moom duñ lekk yàpp. <laughs> duñ non non duñ lekk yàpp quoi. kaani gi ñuy wax boo ko joxee seku day wax est-ce que loolu lu wér la. bon man gëw ma quoi parce que gis naa ay seku yi waxte yoo xam ne duñu leen jox kaani kaani moom naturellement seku daf ko bëgg seku moom pour mu wax il faut nga téye ko à yaral ko sa bopp minil ko sa bopp di wax ak moom muy dégg mhm. nga jël sa temps day yàgg nag après day commencé di répéter te ñoom seen biir duñu mënaante comme ñaari box yi yële ñoo ñoo dàq wax kii yi mm. am na yu nekk si biir yoo yoo xam ne aussi yooyu ñoo dàq wax yooyu moom dañuy wax normal d'accord yu nekk ci biir. waaw am na yu nekk ci biir bu ñu demee di nga ko gis. d'accord incha allah waaw d'accord. Mhm. d'accord et yii aussi ku ci bëgg jaay bi tamit yaa ngi koy def. non moom amul problème yii moom. Mhm. daanaka moom foo tourné mën nga ko gis quoi yii moom méttiwul ko parce que Sénégal fii lañ lañ lañ jógee waa waaw yii moom méttiwul donc di gis nag gaa yi nekk si kaw tali yi dinañ lay jaay ay couple ak case bi. mais boo si jëndee boo yóbboo sa kër automatiquement da nga da ngay dégg ñu ne seko bi xaru na wala dee na lu tax loolu. waaw parce ñoom ay adulte la ñuy jàppee ci àll bi di ko jaay xam nga adulte yi boo leen jëlee dugal leen fu ñu xamul lu ci ëpp du xaru mais day bañ a lekk. waaw waaw nekkul dafay rey boppam mais day gedd lekk ba dee. mais yii bi ñu ñëw fii ay bébé lañ man maa leen yar ba ñu toll nii moo tax dañu dañu miin quoi dañuy adopté wu yii mën nañ fi def ay at du ñu am benn problème. d'accord mais boo leen jëlee ci àll bi ñu nekk ay adulte nga dugal leen ci milieu bu ñu xamul duñ lekk. loolu moo leen di rey quoi ñu naan dafa xaru fekk xaruwul. d'accord loolu la moom question boobu yàgg na ma yàgg na <laughs> wax mm-hmm. donc leer nañ donc lii ku ci bëgg da ngay am euh, bu ndaw bi moo gën wala boo xam ne habitué na si. ñu casé boobu daal moo gën. mais mooy gën a cher nag. waaw mooy gën a cher quoi. parce que couleur yi sax du bokk boo xoolee yii ni ñuy verté. Mm-hmm. ak yee ni ñuy def zone bi ni muy génnee mooy gën a rafet dañ yaakaar ne say importe la fekk yi fii lañ juddoo mee nag da leen tey téye à bas âge téye leen di leen yar. di leen jox lekk bu baax ñu miin après jeex na. fi mu toll nii boo leen bàyyoon ci àll bi sax am na bu bu fi rëcc génnoon mais dafa ñëwaat. dafa ñëwaat dafa dafa ñëwaat taxaw fii ñu jàppaat ko dugalaat ko. duñ xam sax milieu mm, seen milieu naturel xamuñu ko quoi. Babacar ba tey ñu ngi ñu ngi si parc bi tey mën nga ñu expliquer euh, box bi ñu nekk lan moo fi nekk en commençant par fi nga taxaw. bon box bi euh, fii ma taxaw nii moom ay cochon den ñoo fi nekk. Mhm. bon ay cochon dend comme ay lapin mais ñoom ba tey bokkuñu ak lapin quoi. bon ci biir cochon d'Inde yi aussi dafa am trois races yu bokkul. Mhm. am na frisé am na poil lisse am na péruvien mais man frisé bi laa yor quoi. waaw ñoom vraiment ñoom amuñu tamit benn problème dañ lay miin. Mhm. mën nga leen jàpp duñu la def dara. te ñoom par rapport ak lapin dafa am benn particularité bu nekk si ñoom. Mhm. moom deux mois lay ëmb mais doom ji si biir bi lay màggee day juddu léegi commencé doxi soxlaam am karaw yëpp. d'accord après bu nàmpee deux mois soog a arrêté quoi. dañuy nàmpal en moom deux lay nàmp ko euh, espèce bi bëriwul ma Sénégal lu ma ko fi gis ah je su ma fois ma gis ko koy élevé. bon cochon d'Inde moom bëri ba mu duggee Sénégal yàggul. waaw ba mu duggee Sénégal yàggul quoi. Mhm. moo tax ñu bëri bu ñëwee dañ naan la lii est-ce que lapin la ba si yàgg ñu ne non lapin man leen non beneen race la bu bokkut ak lapin. Mm, dafa dafa niróo lapin quand même. waaw am na différence xam nga lapin day am geen noppi rëy. Mhm. moom amul geen noppi dafa ndaw. te bokkuñ ni ñuy ni ñuy ni ñuy juree bokkuñ ni ñuy ëmbee. bon à part cochon yi am nañ fi ay am seet. gis naa lekk bi am na mboq am na dugub am na ñax. waaw ñoom ñax lañ gën a bëgg sax mooy seen lekk mais léegi da leen koy jox pour juste suñu am poids quoi. mais ñoom seen aliment naturel moom ñax la quoi. waa ñax la waaw. fan lañ ñoom. bon ñoom seen origine nag moom fële la asi hmm. mais fii gaa yi commencé nañ ko produire quoi. yii fii lañ juddoo Sénégal. waaw yi fii lañ juddoo quoi fii lañ juddoo waaw. Mhm. ci man lañ juddoo quoi. kon yaa ngi si yaa ngi si production xëy waaw cochon d'Inde yi maa ngi ciy def production. maa ngi ciy def production waaw. ñoom mhm. ñoom seen couple yi fan la toll prix bi. gars ma koy laaj lu bare bare bëri quoi. bon différence bi euh, da trois bu nekk ak prix bu mhm. fekkente ne euh, poil lisse yi la moo gën a yomb. bu dee frisé yi nii ñoo gën a cher ak euh, péruvien yi. bon bu dee frisé yi couple bu mag day dem ba soixante mille cinquante mille. couple yi ndaw yi mooy jar quarante mille Euh, kii yi purivien yi moom day dem ba cent cinquante mille coupes. d'accord waaw yooyu day dem ba cent cinquante de vie. Euh, bon ñoom nag mën nañ dund ba ay cinq ans six ans sept ans. waaw ñoom mën nañ waaw ñoom dañuy gudd fan. ñoom moom bu bu lekk bi jaaree yoon fi ñuy nekk di di di set. Mhm. moom mën nañ mën nañ gudd fan quoi. beneen beneen box bi gis nañ fa ay ay genre kaay su ma juumul mais xaw na di am différence ak kaay yi may gis la gars yi di koy teg si marché yi. waaw yii la ñuy wax kaay de Chine. am na fii kaay de Chine mooy yu ndaw yi am na kaay gànga kaay gànga moom la olof di wax tippiripi quoi waa bokkut ak kaay de japon bi kaay de japon bi ngay faral di gis hmm. waa yooyu ngay faral di gis mais yii kaay de Chine moom nii rek lay toll moom day tuuti quoi tuuti yi ay mag lañ waaw yii dañuy ngi produire dañ commencé nañ hmm. nen waaw ñoom dañ commencé nañ nen quoi nii rek la ñuy toll nii rek la ñuy toll duñu duñu nii moo tax ñu leen di woowee kaay de Chine quoi fan lañ bon seen origine moom Chine lay doon <laughs> waaw ba mu duggee Sénégal aussi tax koo yàgg mm. moo yàggul quoi bu ma tey ay un an wala maximum matul est-ce que mën na ko sax yàggu fi de non non yàggul dugg Sénégal quoi bon ci li ma ci li ma ci bon ci li ma ci gis mm-hmm. ci li ma gis yàggul dugg Sénégal quoi à loolu fële ay ay ay ay colombe ñoo fa nekk boo ko gisee da nga yaakaar ne suñ pitax yi la mais ba tey bokkul yi la ñuy wax colombe culturelle dafa am ay couleur mitation yoo xamante ne amul si suñu bos yi même ni ñuy reculer yaa ngi dégg. bokkut ak suñu pitax yi ni ñuy reculer. et puis dañuy produire normal. waaw fii am na si yoo xam dañuy jékki-jékki génn. Mhm. rëcc mais dañuy ñëwaat. kon euh, yii euh, bokkut ak pitax àll yi mën na dem ba miin ba ba. mën na dem fii moom am na fii yoo xam ne rëcc nañ mais dañuy ñëwaat. dañuy génn mais dañuy ñëwaat. d'accord waaw loolu la quoi. d'accord mhm. bu dul loolu aussi am nañ fi ay masque de fer am nañ fi tamit colombe jama. Mhm. colombe jama moo nekk ne ak masque de fer bi ñoom ñaar ñoom ñi ngi couver quoi. Mhm. waaw dañuy couver. Mm-hmm. d'accord mais yii yëpp ku si bëgg moom bu la contacter mën nga mën nga waaw waaw ku ci bëgg moom boo ma contacter moom bu fekkente ne am na fi moom amul problème dañ la koy jox quoi sans problème parce que daa am saison de reproduction am saison boobu dañuy arrêté buñ produire après boo téye ci ngay jaay li ngay jaay joxe li ngay joxe. Mm-hmm. xaaraat saison beneen saison quoi. bon fii mag ñu ngi ci côté mbonaati fii moom mbonaati ñoo fi nekk quoi. Dorte Surkata race bi moo tudd Surkata quoi. d'accord mhm. tey tey mbonaat mën nañ si jàpp ñaata xeet yoo xam ne am na am na am na ci mbonaat yi. bon mbonaat dafa bëri façon de. dafa bëri façon man daal peut-être trois façons laa ci xam Surkata yi ak totti de mer yi ak totti yi dund ci ci ci ci dex quoi. ci dex yooyu laa xam mais dafa bëri façon. am na ay herbivores am na ay carnivores quoi mais yii moom c'est des herbivores yii moom. ñax la ñuy nekk ak lekk ak yooyu quoi. d'accord d'accord mais yii du ñu duñu duñu dugg si ndox parce que fii gisuma fi mbalka gisuma fi gisuma fi lu xeetoog mbalka non non ñii soxlawuñ ndox ñii soxlawuñ ndox ñii ci désert yi la ñuy jógee en général quoi ñoom soxlawuñ ndox mën nañ toog ay weer duñu naan mën nañ toog plus de deux mois duñu naan soxlawuñ ko quoi ñoom mais loolu comment ça dañuy da nga leen di jox ay litre litre ñu naan denc wala nu muy demee. seen nature la ñoom gisoo seen seen seen seen abreuvoir bi ni mu ndawee. lii mën nga ci def ndox. 15 jours 20 boo ñëwee même même quantité bi nga fiy fekk ñoom du ñuy naan lu bari ko d'accord waaw du ñuy naan lu bari. d'accord te dañuy hivernal aussi mën nañ jékki-jékki dugg fenn gas fa dugg fa def fa ay weer duñ lekk duñ naan ba saison bi du ñu ñu ñu génnaat. d'accord waaw d'accord seen production naka lay naka lay naka lay demee. bon production bi nag il faut mu am entre dix ans douze ans neuf ans pour commencer produire. Mm. waaw ñoom seen durée de vie aussi dafa yàgg quoi seen espérance de vie mën na dem lii mën na dem ba cent ans. mën nañ dund cent cent ans plus de cent ans sax mën nañ ko dund. parce que boo xoolee yi mm. ay huit ans ki neuf ans lañ am quoi. ak ni ñu toll nii ni ñu toll nii ay mën nañu wax ni ci ba tey ay ay liir lañu. non ay liir lañ ay jeunes lañ. yii day dem ba cent kilos mën na ëpp sax cent kilos waaye maal bi mën na sax cent kilos quoi. d' accord mhm. mu mel ni bàyyi ma boo am doole la aussi naa fa dégg ñu naan mën na yenu saako ceeb. mën na yenu bii su ma ci taxawee day dox. ndaw bi non bu maal bi su ma taxawee mën na dox ànd ak man dox ñoom dañoo am doole quoi. te du ko dara. non du ko wàññi dara ñoom dañoo am doole ñoom moom yàlla dafa leen defaral et puis gaawuñ dee. ñoom mm. moom dañu dëgër. waaw ñoom moom dañu dañu dëgër quoi et benn animal mënul si ñoom dara boo ko jegee day dugal bopp bi ak tànk yi bàyyi laa këll bi këll bi moom mënoo ci dara quoi même gaynde bu ko xam tamit. mosuma gis gaynde bu lekk mbonaat. mosuma koo gis waaw parce que moom bu gisee lu nekk menace si moom rek. dafay défendre boppam dugal euh, bopp bi ak tànk yi tànk yi boo xoolee dafa am ay écailles ci nekk. ay mhm. genre jam-jam. Mhm. mënoo ci dara quoi. d'accord daal ñoom doole boobu lay seen seen force foofu la. nekk foofu la nekk parce que ñoom dañu yeex. ñoom boo leen gisee moom pour na jël leen du ñoom du daw xëy na yàlla loolu la leen defaral quoi. seen force foofu la. seen accouplement naka lay naka lay demee. waaw comme nii rek maal bi nii nga ko gisee nii mën nay tëb comme yeneen animaux yi ni ñuy tëbee rek waaw bu heure neenam jotee day gas suul. couvaison moo gën a yàgg ci yi ma xamagum ci. Ah, ëpp dañuy nen ah? dañuy nen couvaison am 3 mois lay duré. Hmm. waaw mois quoi. waaw mais moom produit bu ma leen leen téye di def ay études si ñoom. di def ay recherche quoi. bu bu ñuy couver dañ koy boof yi defee wala wala. naka lay demee ñoom dañuy gas suul nen bi. dañuy suul dem. bu heure école jotee poussin yi day génn. ñu génnal seen bopp dañuy génnal seen bopp quoi. seen seen seen lekk bi yi ñax rek la ñuy dundee. Ah? ñax dugub bañuñ dara ñoom mburoog bañuñ dara quoi ñax ak lépp mais ñax lañ gën a bëgg nag ak ngooñ. waaw ñax lañ gën a bëgg quoi parce que ñoom bu ñuy lekk dafa mel lu ñu sàq mi dañuy lekk rek di muy dugg. waaw. gis naa nga defal leen benn benn mbaar bu ndaw boo xam ne am na kër. Mhm. Euh, naaj da leen di sonal tout le temps wala wala lii pour leneen la. non naaj bi sonalu leen mais des fois dañuy bëgg kër te bu ñuy tëdd ñoom fooy la ñuy tëddee quoi foofu la ñuy nelawee. ci kër gi ci biir mbaar bi quoi au moins dara du leen tim mhm. ñoom 18 heures nag ñu dem tëdd ñoom moom dañuy teel a teel tëdd ñoom 18 dañuy jóg waaw dañuy mu jotee moom gis nga leen ñu dem tëddi quoi d'accord ok d'accord dinaay faral di gis nit ñi dañ koy bëgg seen kër yi mais dañ naan day gas day daaneel kër est-ce que loolu du c'est avéré lu wér la. waaw bien sûr yii moom dañuy gas te pax yu mag la ñuy gas. lii moom boo koy yet ci kër moom il faut nga am espace bu yaatu. Mhm. wala nga defal leen foo xam ne comme nii rek du ñu mën a gas. d'accord da ngay batane suuf mais bu dul loolu lañuy gas. te pax yu mag la a mag mag mag sax la ñuy gas. d'accord waaw. mais am na système boo xamante ni nit ki mën na ko def mën ko yor te du gas quoi. comme ni ma def nii rek fii si suuf dañ ko ba bétonné. Mhm. ci kaw lañ def suuf même buñ waaxee après béton bi la ñuy jot quoi. duñ mën a gas duñ mën a parce que fii dañu bëgg nit ñi buñ ñëwee di leen gis. Mhm. visibilité bi lañ ci gën a soxla quoi. mu mel ne parc bi am na yeneen yeneen i affaires yu nekk euh, tey comment ça se passe les les visites naka lay naka xam nañ ne parc ànd da ngay ñëw jënd ticket dugg visiter gaynde visiter segg ñëw est-ce que fii c'est c'est même méthode bi la wala wala am na benn bien bi la parce que fii boo xoolee visite yi mi ngi tous les jours la 7 mhm. sur 7 entre 10 heures ba 18 heures mhm. waaw 10 heures ba 18 pour le moment moom prix bu abordable lañ ko def mhm. bon ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar gars yi daal nañ ñëw tamit incha allah duñ ko rëcc. est-ce que mën nga joxaat adresse bi ak numéro téléphone boo xam ne xëy na kii ñi nga xam ne bëgg nañ si plus d'information ñu mën la woo. boo adresse bi moom Lagrose la boo ñëwee ba Lagrose rek boo laatee parc bi moom ñëpp xam nañ ko quoi si géléem yi fi ñuy nekk rek ci montagne yi noonu. Mhm. parc bi foofu la nekk di nga gis dessin euh, mur bi am ay desin animaux. Mhm. boo numéro bi 77 541 57 34 mooy sama numéro quoi boo ma woowee dinaa la jox la. maximum d' information quoi. d' accord mu mel ni c' est vrai koo def production bi. mais du ñàkk ni xëy na ku nga xam ne bëgg na ko am nga ay ay yoo xam ne nit ki mën na fa jaare wala nga wala nga ko fa ba mën si ba mën si am moom itam këram. waaw ça dépend rek parce que yii moom en général moom boo ci bëggee mën na bañ a jafe trop quoi. Mhm. waaw mën na bañ a jafe trop. Mhm. mën na bañ a jafe trop nag. parce que ci réew mi lañ jógee yéen bon en général ay Mali Burkina dëkk yooyu la ñuy jóge mais am ñoom ñu ngi koy élever fii di ci produire. d'accord waaw di ci produire ko d'accord mhm. d'accord ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. baax na ngay tàggatoo. baax na maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen remercier ci déplacement bi ngeen def ñëw ba fii bon vraiment yéen a ñuy jàppale ko parce que li ñuy liggéey yéen ngi koy wane waaw yéen a ngi koy wane bu baax quoi.